man Touba dëkk donc euh, état bi xëy na des na bu defee dara it des na parce que boo xoolee Matlaboul nii muy hôpital Matlaboul Fawzayni ba Matlaboul Fawzayni ba nga xam ne ma nga fa donte sax ma nga fay def ay liggéeyam des na ba tey parce que boo demee ba tey jii nii bu euh, euh, temps hivernage bi muy nawet bi da ngay gis ne da am ndox yu taa da ngay gis ne hôpital ba des na garab ya des na paj ma des na lu baree bari des na fa ba tax na loolu moo tax euh, poste de santé yi ñu nga xam ne dañ koy def te mën na wax ne dañ koy dimbalee gouvernement bi parce que moom la waroon parce que boo xoolee Touba euh, Touba jëmi Touba am na gabu plus de quatre vingt postes de santé quatre-vingts wala quatre-vingt quelque yaakaar naa ne yoo xam ne si gab la boo xam ne si ca dëkk ba ak la fa nekk ci mbooloo waroon na koo am ci ay poste de santé loolu moo tax bi ñu koy bi ñuy defar bi ñuy tàmbali euh, assainissement yi ak infrastructure infrastructure yi ñu ne poste de santé mënut a ñàkk ci kaw loolu it nag poste de santé yi nga xam ne moom la Touba ci kanam di def euh, ñi ngi def pexe pour yoral ko suñu bopp parce que gis nañ ne lépp loo xam ne si peut-être état ba da ko faa def dafa xaw a des ay suivi yu des yoo xam ne si ña nekk ca bopp ba ña état bi jiital ci seen ca liggéey ba day des genn des gi ba tax na ñu bëgg ko yoral suñu bopp aménage aménagé ko suñ bopp yor lépp suivi ba yëpp mu nekk ci suñ loxo. waaw ndimbal gouvernement bi la ñuy sàkku dañ ko am. ndax mënut a ñàkk gouvernement bi la ñuy jiital ci lépp ndax ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy indi docteur yi ñooy xam dëgg-dëgg yenn détails yi mais teewul nag danañ ci jàpp suñu kemtalaal kattan xanaa jë gën a jàpp rek fi mu ne fenn fenn fu nekk ñi ngi jàpp ñi ngi jéem a def di jéem a entraîner euh, di jéem a jàngal nit ñi lan mooy taxawaayu Touba ci kanam ca hôpital ya jéem a góorlu jéem a topp ci waa gannaaw gouvernement bi ndax itam mënuñoo dem sans ñoom mënuñoo dem sans ñoom ba tax na lool yi ñu ngi ci suñu kem la kattan fii itam ñi ngi góorgóorlu def ay jéem a ay conteneurs yi euh, nu ñu koy waxeeti médical comme ni ñu jëlee ci yenn hôpital yi Italie jàmbaar lañ ci noonu ñax yóbbu nañu ay ñetti ñeenti conteneurs waaye ci sa laaj bi bu ma ci dellusiwaatee gouvernement bi ñu ngi góorgóorlu ci seen wàll waaye des na fa ndax hôpital yi Matlaboul Fawzeyni la fa nekk. jégg na day wax te loola it bëgguñu résultat boobu ñu am ko ci poste de santé yi ba tax na muy sas femme yi muy docteur yi muy infirmier yi ñoom ñëpp soxla nañoo tegaat liggéey bi ci yoon ndax tegul ci yoon